à cette situation parce que diggante président la ak conseil constitutionnel le dernier mot revient au conseil mhm. mais euh, Mamadou di nga d'accord ak man que conseil du jël décision bi euh, le 15 février pour wax président Macky Sall munoo def élection au-delà du 2 juin mm -hmm. quelques jours après président ko un document pour avis mun na ko d'accord mun nga def élection au-delà du juin loolu bu boobaa le conseil va se dédier ah day waroo ak ay kàddoom ah, te mm-hmm. loolu je pense que conseil du ko def donc président Macky Sall fi mu nekk nii ñëpp xam nañ parce que li li li li ruus ci conseil de ministres bi te binduñ ko ci ci ci ci ci ci communiqué bi mm-hmm. mooy que ne dem na boo wax sax ne ah bu jafe-jafe amee moom am na possibilité jël pouvoir exceptionnel ba léegi fàttewul loolu article 52 mu ngi trotté ci boppam ba léegi donc Euh, ñëpp xam nañ li mu bëgg li mu bëgg mooy créer une véritable crise institutionnelle pour pouvoir gouverner seul loolu nag sénégalais yi rek. foofu naka naka la mën a demee maanaam bu conseil euh, tënkoo ci lim njëkkoon a jël. li ñu fay yóbbu du ko du ko du ko nangu te boobaa le président Sall mën na euh, utiliser article 52 bi ñuy wax bi nga xam ne xëy na mën na euh, indi ses pouvoirs exceptionnels boobaa nag ci la ñuy dugg ci li nga xam ne mooy la véritable crise institutionnelle parce parce que moom mënul dissoudre conseil contrairement à li nit ñi pourtant c'est un débat qui s'installe de en plus mënu ko dissoudre amul benn texte bu ko permettre mu dissoudre conseil lenn la mun a def mhm. lenn la mun a def comme ni ni ni di def dugal ay loi d'urgence mun na dugal loi d'urgence parce que PDS na ko

boo bëggee changer ak une cour constitutionnelle tu vas toucher à la constitution sénégalaise alors que dañ ko ne boo jëlee article 52 mënoo dissoudre assemblée nationale mënoo def réforme constitutionnelle ah, looloo tax muy hésiter